bëgg insister mooy euh, sa parcours sa jaar-jaar ak li nga mën a apporter mënoon nag nekk atout en fait parce que aussi on gouverne avec benn ñi nga wóolu donc wóolu baa ngi fi ak ñi nga xam ne gëm nañ projet bi gëm-gëm baa ngi fi ak ñi nga xam ne mën nañ mën-mën baa ngi fi foofu laay waxee. oui mais ils en sont conscients. qu'est-ce qu'ils attendent alors. ñoom xam nañu c'est-à-dire xam nga ay nit la yoo xam ne moi je continue à leur faire confiance. xam naa ne xam nañ bu baax ñuy teg seen. nomination yi bëri na ci ñoo xam ne amuñu benn expérience ah même côté côté côté jaar-jaar euh, yàgg fi ñu nekk ay xale yu ndaw 29 ans je n'ai rien contre les jeunes ah ils sont bien même le président il est jeune mais je veux dire côté vécu ci wàllum euh, li nga def li nga prouvé foofu la ñu waroon gën a appesantir en fait pour avoir des résultats yu gaaw te baax. oui moom lay wax moom lay wax c'est-à-dire que ils sont en de nommer des gens ñoo xam ne ils le profil de l'emploi boo xoolee toutes les nomination amul kenn ku ñu nommé koo xam ne dañ naan ak ah, kii de li ñu ko jox mënu ko. non mais certains disent que Dame Mbodj prof anglais ñu jox ko SOGIP am na ñu koy wax am ñu ne un médecin bu ñu yóbbu LONASE am na ñu koy wax bon dëgg la manager soxlawul. Euh, ah. forcément voilà nekk spécialiste mais je veux dire. <laughs> voilà non c'est-à-dire dañ la yóbbu dañ la yóbbu foo xam ne nit ñi liggéey ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu boobu loolu lañ jàng bi état di leen fay ñoom ñoo nga fay fekk. waaw ci domination yu bëri gis nañ ko. waaw par exemple c'est-à-dire boo jëlee boo jëlee DG tous tous ces mangas. oui mais on ne demande pas de les soigner la LONASE. <laughs> non ce sont ses compétences managériales ñoo tax mu yóbbu ko solo mhm. ce sont ses compétences managériales daam fu mu nekk mais c'est pas parce qu'il est enseignant qu'il ne peut pas le faire en dehors de l'enseignement boo xam ne moom la jàng. Mhm. au niveau de l'économie supérieur mais Dame il est responsable syndical. waaw waaw waaw mais syndicat c'est pas lu diis la kay lu métti la. c'est pas gérer rek benn affaire la. ma euh, waxatuma la. syndicat d'enseignants du moyen secondaire. Mm-hmm. fa la coow li ëppee. voilà parce que ñi ngay ñi ngay ñi ñi lay ñi la wóolu jiital la mais ëppoo leen dara. mais mais Ousmane Sonko a parlé de ay alliés ay leaders yu xaw a mer yoo xam ne yéex ñoo jot wax na ko ñu bëri gis ne xëy na. jante bi ñu déggatul ci la bokk. même nu bosom bi ñu déggatul ci la bokk. mais maa ngi dégganteeg Ousmane. ah oui donc il parlait pas de vous. mi ah, wax non ñeneen la. non xam nga xam nga en réalité man je nee naa la nomination c' est des mesures individuelles. Mhm. man nga nommé ma nga ñàkk maa nommé fu ma fekk fa nga may fa la may. j' espère bien que ça viendra rapidement parce que man foofu laay waxee. man fi ma nomination parce que avant tout maa ngi sant yàlla maa ngi jot sama payor tous les mois. Mhm. di ci suturlu di toppatoo sama njaboot mais c'est vrai tu es avec des gens yoo xam ne li nga yëkkati dañ la cee fekk. Mm-hmm. donc ñooñu foog nga bàyyi leen xel. bu doon mën kese kese kese citoyen Mamadou Lamine Diante. Mm-hmm. yàlla xam na ne bu leen neexee buñ ma nommé du ma yàqal dara. mais am ñoo xam ne ñu ngi si lobbying bu metti ah lobbying bu metti. pour ñenn ñi ça apporté. pour d'autres ñu ngi xaar encore man. j'ai eu à, à, à étouffer de contestation pour naan dañuy def manifestation. ah oui ko ñu bokk ci yéen. oui ñu bokk ci man ñoo xam ne xëy na sax ci man waaye waa Kolda la ñu ko mën. ndax la il il demandait. il pense que Modou toog bi heure bii kenn. dafa yéex dafa yéex man mi man mi bu ma la xamee naa leen rejoindre léegi ah. parce que mënuñu ko <laughs> comprendre. mais d' accord mais ça je veux dire xam nga euh, ñi nga xam ne je l'ai dit c'est-à-dire sénégalais dañoo choisir. changement. Mm-hmm. mais il faut que ñu am la euh, ñu am les les moyens d' accepter et de de d' accepter le changement maanaam da nga ne da ngay génne li fi nekkoon. parce que mm-hmm. baaxul da ngay choisir leneen mais tu n'as pas remplacé Macky Sall par Diomaye. Mm-hmm. président Diomaye boo déggee boo déggee dans son discours même dans son dernier communiqué du conseil des ministres dafa jàpp ne moom ñëwam à la tête de l' état du alternance alternative la. maanaam ñëwul pour remplacer nit. Mhm. mais dafa ñëw pour indi beneen système boo xam ne. indi leneen waay mooy gën ci sénégalais yi que système bu fi nekkoon. Mhm. léegi nag loolu bu amee nit ki nga xam ne moom ngeen fal ba mu nekk président de la république mu tànn koo xam ne moo nekkoon jiitam ci parti bi te moo waroon projet sénégalais yi mu jàpp ne kooku moo gën a yelloo nekk président ne premier ministre. mais da leen di bàyyi ak seen teyu bakkan ñu xool nan la ñuy doxalee mbir mi. loolu bu ñu ko parax paraxee rek. non loolu ngeen ñu jaay mais yéen a ngi fi bëgg a yàgg ah dëgg la deux mois ci cinq ans c'est rien du tout mais au moins on s'attendait à ce que ay actes yoo xam ne kat euh, dem na ci sensu améliorer positivement les conditions de vie de des des Sénégalais. ah si lu ngeen tegagum. li Diomaye président Diomaye. déjà ñaar laa exemple. oui appel à candidature yi respecté wu leen ko. Ah, si ci fan. mais c'est pas comme un appel à candidature comme bu dee def concours concours d'entrée dans un dans un dans une école mais nee naa la ñëpp ñu choisir nii yëpp ils ont le profil de l'emploi. oui mais ay CV Pastef ñoo nekk tableau Ousmane Sonko. man je sais ça. CV waa Pastef rek ubbiwul leen ko ñeneen ñi loolu moo loolu appel à candidature loolu c'est sélectif en fait. qui est le directeur de camp euh, cabinet du euh, président Diomaye. Mary Teuw Niane. Pastef la bokk. non mais il était il est l'un le secrétaire général du gouvernement. non kooku da ngeen ko soxla woon parce que sinon kon conseil des ministres dina tardé kooku da ngeen ko soxla woon bu fa jógee woon dootu leen ko defal. mais il n'est pas de Pastef tu es d'accord avec moi. je d'accord le ministre des forces armées. Euh, Pastef la Birane non bokkul Pastef et nee nañ même c'est dangereux c'est la première fois que Sénégal ñu jël un militaire jox ko forces armées nee nañ loolu wóorul en fait parce que on ne sait jamais voilà xam waxee bëgguma ci sori trop. mais non mais c'est un commis de l'État. oui mais c'est un ah mais militaire. ñu doon forces armées non tu n'as pas besoin ñu jox la forces armées pour nga def li nga bëgg a. kon ah, xam nga fi ma bëgg a jëm. non moo tax moo tax ma ne la. qui est le ministre de. parce que j'ai reçu quelqu'un ici un ancien la ma wax mu ne ma. loolu tàmmuñu di ko def mhm. le ministre de l'intérieur kan la. non seen seen waaye la kooku dañ ko sanctionné woon ci émeute 2021 yi ngeen delloowaat ko place am récompensé ko. ku jublu rek ñu bëgg ko def loolu loo xam ne méngoowul ak yoon mu bañ a xool comme ni capitaine Touré def c'est pas parce que dama dama ay galon damay def loolu loo xam ne méngool ak samay gëm-gëm mu ne duma ko def. non il n'avait pas su anticiper sur l'émeute maanaam li ñu doon xaar moom mooy que loolu bañ a am. déedéet li ñu bëggoon mooy mu dal ci kaw askan wi. loolu lañ ko sanctionné. ah déedéet mais assurer la sécurité ce n'est pas tuer les gens. anticiper la ñuy gën a xaar. maanaam est-ce qu'il n'a pas continué les est-ce qu'il n'a pas continué les manifestations. y avait des dégâts énormes. est-ce qu'on a est-ce a pris on a pris nationale. Est-ce qu'on a pris l'Assemblée nationale Les institutions, non, les institutions de l'État sont restées debout. Sont restées debout et sécurisées. Mm les manifestations de rue, c'est ce qu'il a de plus normal.